dangay def. mais gars yi lañ soxla ñu arène nationale bi tëngeej. guerre bu saf Karbala mu doon combat boo xamante ne naxaroon na taxawal tey ngeen taxawal ko tey gis nga ni stade bi ñëwee macha allah tëngeej yëpp gëdd nañ wane nañ tëngeej taarixu làmb la daa bokk ci làmb ban yëg nga ci am. xanaa xanaa sant yàlla nag di ci jiitu. Hmm. ndax commencé eh, bisimilahi ci alhamdulilah loolu ñuy doole. Hmm. ak borom ñu amul xel dañ koy wax léeg-léeg moom moom na am njaxas la boo xam ne nii tubaarkàlla boo leen dajalee ba lépp a pare si ba loolu da ngay sant yàlla Rio Events nag dem na première journée Rio Events ñëw tey si deuxième journée deuxième journée bi nag mënoon na ëpp nii dayo bi ëppoon na nii waaye ki mu ñàkk moo tax jara ko dumaar ku ko ñàkk jooy ko dama ne tey jii bés bii bu doon bésu démb wala kon combat bi du lu ne def nañ ko si pour a ji ba a am waaye nag ku moomul sa bopp te boo signé tamit moomatoo sa bopp moo war a tey journée bi am ëppoon na nii monsieur le maire li na nii dama ne monsieur le maire Omar Cissé mhm. juróom-benni kaar la woon oto yu ndaw kenn xamul woon na mu toy maire yi est dafa waroon a ñëw ouest ak nord ak ville lii moo neex yàlla tey dañu comprendre monsieur le maire comprendre tamit conseil municipal bi comprendre tamit ay adjoint ak maire yi ci commune yi mhm. ku mel ne Assane Kassé naroon na ñëw lii xew na bu xewee tënk ñëpp am nga xar man mi di wax ak yow njëre yaay ko dumaan bi dem noonu la ñu na xarit suñu première journée moo nu jëkk a jàppale ba nu ñemee dem mën a jàppale fa mu tëdd yàlla ko gën a fi mu jël Aliou Mar fa mu ne yàlla ko gën a fi mu jël yàlla ko yàlla yërëm gërëm tamit suñu pare yi gis nga pare yëpp say morom tey boo xoolee xam ne ñu Rio Events li ñu ne dañuy jël suñu doom boot leen jël rakk génn leen référence yi nga référence yi dafa am solo dafa xam ne mu am solo soo demee boo demee dëkk boo dem ñoom seeni jeune la ñu tiital boo dem xoolal Modou Baye Fall si référence yi la bokk tey Modou Baye Fall ñëw soo demee Pikine dañu fokk seeni référence soo demee Dakar gii Jawaay koo dem ay référence am ñu am jeunes ñu am ay jeunes baax la jeunes am njariñ jeunes yu am taxawaay xam lu rafet di ko dox di ko wax moo war a tey ñu tudd tàllalee suñu seen i drapeau boo leen tàllalee si référence yi loolu mënul ñàkk su mën a nii loolu te si jot ñoo woote ne dañuy suqali tënge dañuy suqali cosaan dañuy suqali aada te luy ñu wax nag mënuñu ko di bàyyi suñu jeune boo xoolee drapeau bi tey amul mag say maroom la ak ñoo mag ay xale yu ndaw lañ ko lañ ko tuddee soo demee machine la mu ngi dëkk Kounoune doon koo xam ne ni développement kenn mënu ko ci am taxawaay bu rafet Tubless boo gisee ñu tudde ko drapeau fii première journée moo ko bëri booleeg nag moom di si dox di si comme ni ngay def ñu tudde ko drapeau loolu dañ ko sargale ku mel ni euh, euh, Tuta mu ngi dëkk doon président fii mu dëkk fii Tëngéej moom it gis nga doon jàmbaar jàmbaar si ASC jàppale ASC ba ñu jël ko ñu ne ko yow référence nga jël ko tuddee drapeau ku mel ni Mansour Gueye référence la si daan am taxawaay di wax lu rafet di ko ku mel ne Ibou Ndeye di ambassadeur seen étude waa li ñu ñu tànn na ko a si na yàlla ngi gërëm Tëngéej. di gërëm département bi si. Omar Faye boo xam naa li mu manqué dina ko doon li ñu ngi gërëm. macha allah sëñ bi dugg nañu deuxième journée est la xaar troisième journée. incha allahu li ñu togg fi defe naa ñu si doon

ñu ay jigéen yoo xam ne ay jàmbaar lañ nekk doomu Tëngéej dëkk Tëngéej tey bu ñu woowee bés bu mel nii macha allah tey ban yëg-yëg nga ci war a waaw mais di santaat yàlla rek di julli ci yonent bi di sant suñuy ñaari waajur di ñaanal yàlla na Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di wax ne lii dafa rafet parce que lii peut-être ñun depuis Paala lañ ko gëj a gis depuis Paala Mbengue kon events tey ñoom bu ñu ñëwee def lii di doomu Tëngéej waa Tëngéej yëpp dañu war a génn jàppale leen parce que tey jii moo gën ñu toog ci seen ruku di jaala tamit waa Tëngéej yëpp suñu kilifa gii ñu ñàkk mooy maire Alioune Mar ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla suñu borom xare àjjanay fil dawsi ay njabootam yàlla suñu borom teg ci loxo di wax na ngeer la ma waxoon rek laa koy waxaat man képp kuy topp sama ginnaaw ku nekk comme yéeg naa ko mbër yëpp dinañ ko yéeg parce que ñun amuñu lu dul tëngeej dañu fier ci tëngeej nekk ay doomu dëkk bi kon tamit ñu ngi jégalu li nga xamante ne jot na fee jaar di mbër mu mag bi di ama neex ñu ngi koy ñaanal combat bi mu jëm yàlla suñu borom defal ko ci ndam njum de ñàkk ci doomu aadama far dafa doy waar parce que dafa ñëw indi rakam rakam war a dayanteeg mbër mu mag kon il faut mu demee noonu ñu ngi jégalu nag ci ñëpp bépp takk der gu nekk ci kaw ba ci suuf ñu ngi leen di jégalu di jégalu jëm yëpp di xam ne ne carrément far kese la woon maa ngi koy jégalul di ko jégalul ñëpp parce que moom sa dañuy xaar ci yow lamb da la waaw mais boobu ba léegi ni problème mu adversaire Malaw Seras ñu ngi ko doon wax mais na ñëw ñu bëre. maalaw si jëm boppam na ñëw ñu bëre. maalaw ñëwal jël avance. waaw aywa yaa ko teree neex luñ ma fay lu nekk ma bëree moom. maa ngi lay jaajëfal. waaw nekk nga am ban yëg-yëg nga am ci làmb. tey moom yëg tëb contentement rek wax dëgg yàlla parce que lu rëy lii moom. waaw kontaan nañ si trop trop trop quoi wax dëgg yàlla. ba kan nga indi. tey Karbala lañ indi woon. mu mel ni sotti saak def si la. ah loolu la sotti saak def si mu bëree mbaa bett man moom kon gëmoon naan ala kulli àll da koy daan quoi wax dëgg yàlla. lan lañ a xaar ci sëy. waaw ah, sëy saison bi tijji rek mu bëri waat incha allah comme instant daanaka saison bi tëj na incha allah. maa ngi lay jaajëfal jaajëf jàmm si yow. def begaay maa lay. maa lay siyaar. yow buñ la gisee dañuy gis dëgg da bokk ci làmb. looloo am dëgg la buñ toogee ak tiir dégguñu tijaan ma benn problème dama amoon euh, ba tuuti rek looloo taxoon kenn gisuma mais maa ngi sant yàlla maa ngi tane waaw amoon naa combat mais dama defoon soog après am tuuti blessure mais incha allah su ma tanee damay ñëw bëre combat bi. déggoon nañ sa combat yaa ngeer bu sax bi doon bëre Karbala combat boobu dafa yàqu wala lan mooy problème boobu. waaw dafa yàqu waaw dafa yàqu woon ba ma bëre fi bëre waat fi sax ba waroon am combat si mois de mars bi passé mais yàlla dafa def ma am ndog-ndog moo tax mu jéem a ko bëre mais. reprendre nga say entraînement. waaw maa ngi def ndànk-ndànk rek. waaw waaw damay ñëwaat incha allah. non amoon naa combat am naa combat. am naa combat ak Mame Mor bu Fass grand combat arène nationale la war a nekk mais. blessure bi moo tax mënu ma ko woon bëre mais incha allah déwén damay ñëw taxaw dëgër bëre ko incha allah. yooyu dañ si woo ñu fii ci Karbala bu Sab tey Karbala ni mu bëree. waaw mais Karbala li mu bëree nii rek loolu la mën a bëree te bëree na ko yàlla suturaal ko mu am si ndam di di féliciter waa Rio Events wax dëgg yàlla ñu ngi ñu ngi jàppale xale yi nga xam te ne ñoo bokk ñoo nekk si tëngéej bi jàpp bar ñi xam nga yi ñuy wër tëngéej yëpp ñu ngi leen di jàppale quoi di leen ñaanal yàlla structure bi gën a yokku xam nga ba incha allah déwén ma ñëw bëre ma ba ñëw bëre leen bu sooba yàlla incha allah. maa ngi lay jaajëfal jaajëf. naa leen. delloo ziar ah? sant fay naa la bu baax. tey nga ñëw Rio Events it tëgg làmb ji nii muy deuxième édition am tey bu ñu ñëwee ñu génne la ci prix référence yi Maguette Coulibaly nga doon koo xamante ne nii macha allah doomu tënkee ngay ndaanaan tey ban yëg-yëg nga. ah xanaa contentement rek am mbégte bu lool. parce que Rio Events bi ñuy tëggee lu toll nii ñu seen deuxième édition ñu boole ma si prix référence yi en plus ñu def ma marraine loolu doy na cër di leen kontaane bu baax nag muy yaay Aïda Diagne muy Ndombur muy Ndeye Marème mi taxaw ak Aïda ak ñi si bokk ñoom euh, kii maam ñaaw ñoom ñëpp maa ngi leen di bëgg di leen kontaane aw ma seen fay ndax li ñuy def nii promouvoir la leadership féminine la promouvoir Euh, ndaw Tëngéej la promouvoir ñi nga xamante ne gis nañ ne ay jàmbaar lañ ci département de Rufisque ñu delloo leen njëkkal delloo leen jër loolu day na sant yàlla doomu Rufisque moo ko def ay doomu Rufisque ñoo ko def kon mënuñu lu dul bëgg leen kontaane leen di leen ñaanal yàlla mu nekk ay édition yu gën a bari. est-ce que pare nga ci journée Rio Events yi yeneen ak yeneen yuy di ñëw nga ànd ak ñoom. chaque année rek wala chaque mois rek ñu koy def rek may ñëw suba ba ngoon rek ma ko ciy def parce que lépp lu loisir am si jeunesse lépp lu jàppale jeunesse man maa ngi ci biir lépp lu jeunesse di gis boppam et les femmes man maa ci biir te daw ma si daayu si fuñ ma woo rek ma wuyse ñu ngi lay jaajëfal. bëgg naa danaa ñëw ñu tey Rio Events it tuddee la drapeau bu toll nii da ngay génn sa délégation yëpp génn dañ ko doon ambassadeur soleil tey ban yëg-yëg nga am ci làmb. waa di delloo ziar ñëpp rek. di ziaraat ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku ci yàlla suñu borom mu defal ko sénégalais yëpp defal ko ñi ci monde entier yëpp di remercier ñi nga xamante ne nii tey bés bi ñoo si jàpp te xam ne àdduna moom dara yàggul tey jigéenu Rio Events yi bu ñu demee ba jël drapeau tuddee ba ko moom loolu sant yàlla la mais nag olof Ndiaye day faral di wax naan feccum biir bu neexee nday yaa jàpp sa mbagg ya PDG Mamadou Mbaye kenn du moom ak Assou Thiam madame Mbaye di remercier ba bés amee ba tey taxawuñu tooguñu ku si mel ni Samba Ndaw Sëriñ nday Mariam sama xarit ak Malick Abdou sama grand frère di remercier Fatou Gueye mi nga xamante ne tey moo fi teewal njabootu Asel doon nit ku baax mënoon na maa xébal bés bi ah mënoon nañu ma maa tuddee lamb rek tey mu croiser les bras du ñëw. mais bu dee la mooy sa secret tey dañ la tuddee drapeau ak drapeau yi lu bari tey waaye dafa mel ni Ibou Ndeye rek lañ tuddee tey. waaw xam nga àdduna moom loo gis mbubb mi ngay solo sa boobu day ka sa nawle aduna yëg-yëg rek am solo ak peut-être mën naa ne di dundee que ne yow nit ni la téye rek ko noonu daa doon dara yàggul di remercier ñett ñoo xamante ne ñoo bokk ci man muy Ibrahima Mbaw ak Papis Koné ak Cheikh Sakho sama waay. piloro gaan Begay. si que maa lay nuyu. Begay maa fay doom. waaye am contentement bu baax. macha allah tey Rio Events woo ñu fii mu doon bés mu mag ci diggante guerre bu sab ak Karbala gis ngeen di combat bi demee. tey nan nga ko. mais di ngeen ne xale mag la. ba da dafa ñëw à domicile. mooy loolu noonu tey lii rek la mënoon ñëw bëre daanu dem ñibbi. kon ni Karbala bëree bettu la. man man xamoon naa ne Karbala kay daan parce que alxuraanul karim Karba boo xoolee si combat bi nga xam ne dafa daj ay coono yu métti. da doon liggéey matin midi soir trois séances mais yàlla kan ndam li jib booy alba tamit dafa bëre lu rafet mais ñun tëngeej lañu am barke alxuraanul mais xool sedd na bilaay walaay. li war a bëree le waa le 15 août maa ngi leen di woo yéen ñëpp bés dama bëgg a tënkee ñëw ñëpp ñëw jàpp si incha allah maa ngi leen woo mais di la bëree bëggaay. yow Baye Fall yow sama doom day nga. Baye Fall nga si yow. Baye Balla Mboup nuyu naa la. maa ngi lay fay mon ami frère Cheikh Becaye nuyu naa la. tey da ñëw nag sama dëkk ma kontaan ci lool. da ngaa ñëw suñu suñu dëkk ndax man fii. laa juddoo rabben gi ëttu Jibril Samba bi ak may rab fa laa man waaw. Rio Events woo ñu fii tey muy jigéen yoo xam ne ay jàmbaar lañ macha allah tey wane na bi yàgg nañ ci tëgg làmb wane na tëggee tey bokk na ci làmb. waaw xanaa ñu félicité leen jigéen yàgg naa doon jàmbaar ñaari loxoy takk tubéy waaye ñaari loxo mooy takk sër Rio Events bi mooy seen deuxième journée. ay jigéen lañu waaye ay jàmbaar lañu xoolal tey nuñ def stade Ngalandou Diouf tey tëngéej ñëpp a génn te mënoon naa gën a neex mais ku ne xam ne ni tey dafa am tëngéej dañu ñàkk ku mag muy monsieur le maire Alioune Mar ah, ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko te jéggal ko tey gis nga fi mambar la gis nga fi doomu dàngu gars yi nee nañ combat boobu daa war a neex yooyu yëpp mën naa ne Rio Event troisième journée mën naa jël doomu dàngu ak mambal la boole leen loolu mooy làmb làmb dootul maa la raw làmb dootul maa ëpp combat adversaire yi ma bëre gërë déedéet les grands contre petit la dafa xew da ngay may sens tey ngeer bu sap jëlul jëlul jëlul Karbala may ko sens ah Balla Gaye jëlul jëlul Boy Niang may ko sens et tant d'autres ah Modou Lo jëlul Ama Baldé jëlul Boy Niang ak yeneen ak yeneen loolu mooy lamb jël Siteu lamb léegi loolu la du ay maala raw maala ëpp combat déedéet loolu boo koy def doo gaaw bëri léegi lamb xam nga leen di boole coow waaw coow lee bari tey gis nga coow li ni mu bëree diggante doomu dangu ak Mame Balla xale bii nga xamante ne nii mooy Alpha moo bëri la sandeer muy spécial bi Alpha lan nga ñu mën a jàngal ci kooku doomu tëngéej boobu bërikat la ndaanaan la c'est pas la première fois may seetaan combat am kooku bu buñ ko gëmee jàppale ko ngeen gis un vrai champion te day àggali mission ba pare du ragal Alpha damay gis mu nekk attaquant bu doy waar la waaw ah, booy bi esprit la waaw Papa Yade numéro 2. ndeysaan tëngeej ndeysaan dootul am ku mel noonu. xam nga lu tax booy boobu wallahi wa rabbul kaaba mi ngi ci dëgg maa ngi ci fen booy boobu jantal booy su ma rakk la dafa baax booy boobu keroog bi mu wàccee liggéey booy toog naa une semaine yoo xam ne barke alxuraan di ci dund lu métti parce que booy bu ñu mësaan a ñëw fi open press wala ñëw fi benn affaire tëngéej nii du bëgg dara lu nu naqari te bu ñuy dem bu ñuy ñibbi dinañu jéem a gunge wala mu jéem a def effort jéem a dugg fu ne li jënti paas bu dëgër jox ñu ne ñu paas leen sama dëkk ngeen ñëw te sama dëkk bu ngeen fi ñëwee dama bëgg leen dama leen bëgg teral waaw gestes yu noble yooyu nag xam nga li ma laax yooyu il faut ñu koy wax waaw wàññiwul dara ñu ngi koy ñaanal yàlla rëm ko te jégul tëngéej champion yàgg na fa bàyyi ko tëngéej dëkku taarix la dëkku cosaan la tëngéej fii la mësu ñang dëkk waaw tëngéej fii la góor gi am satafaal dëkk ñaankat bu mag bi di nit ku baax bàyyi Abdou Fall tëngéej fii la mbay ràbb dëkk fii la Jibril ah, Samb Ngoné dëkk ah. fii la Boos Gueye dëkk fii la Ngoné dëkk Tëngéej fii booy cosaan Tëngéej fi la xaar mbay ma jaag dëkk mi daan wax bàyyi leen seen yaaba ji te laale oh. laale baaxu góor lii bu doon làmbi jigéen sax jeex na <laughs> ah yooyu booy booy fii daal cosaan la fii